santé de la reproduction ci district ouest moomu madame Fall Nogoy Mboup euh, gannaaw ba ñu la nuyuwaatee ñoo seetaananoo kon reportage bi euh, ngeen sumbaat sax la ñuy wax ndax du doon gulet euh, lu jëm ci xeex bi ci lii di cancer col de l'utérus bi yoon nag ngeen wàcc si ba ci gone yi xëy na bu ñu ko daan wax ci mag ñeeg ñooñu la ñuy wax ay dépistage ngeen mel ni fàggu gu ngeen jiital tàmbalee ko ci xale yi am juróom-ñeenti at lu waral gone yi. waaw euh, jërëjëf li waral gune yi rek moo di boo bëggee xeex dara da nga koy tàmbale ci ña nga xam ne bii ne ñooñu bu ñu màggee jàmm mën na am bu njëkkoon comme ni nga ko waxee woon ci mag ñi lañ daan dem bu ñu demee si mag ñi def dépistage bu ñu defee dépistage ñaare dinañ gis ne cancer bi sori na. bu soriwul gaa mën nañ kaa faj mais puisque cancer bi day nekk sa yaram te doo ko yëg lu bari mën day dem ba sori léegi nag ñu ne xale yi nga xam ne bii dañoom dañoo am juróom-ñeenti at nga xam ne xamaguñ dara seen àddina nañu tàmbali si ñoom fi mu nekk nii nag fii ci Sénégal dañ ko démarré ci deux districts muy pilote yi maanaam muy district ouest fi ñu nekk ak euh, district Mexe léegi nag bu fekkee ne bii nag li ñuy liggéey nii réussir na nañ ko mën a étendre nag ci Sénégal gi yëpp bu ko defee ñu dugal ko ci programme élargi de la vaccination xale yi nga xam ne xamaguñ dara buñ leen ñàkkee aar leen muy prévention primaire bi ñooñu bu ñu màggee mën nañoo bañ a am cancer bi te xam nga ne bu fekkee ne xale yu ndaw yëpp aar nañ leen bu ëllëgee kon amaana cancer bi dina reculer bu baax a baax. Euh, lii nag lu ngeen waaj la nekkul lu ñu jóg rek def ko bërëb parce que dafay laaj ay gëstu ay saytu waaye it ay koppar euh, parce que gone yaam juróom-ñeenti at ci réew mi yëpp bu ñu leen naree vacciné ñaari yoon ndax juróom-benn weer ak docteur danañ ñëwaat euh, dafay laaj ay ni ñu ko waxee koppar préparation bi naka ngeen ko waajee ñu ngeen ci waxal ba ñu gis ni xëy na lii mooy solution pour euh, jëlee fi cancer du col de l'utérus. Euh, préparation bi waa ministère de la santé ak waa Gavi ñoom ñoo waxtaan ba ñu jël deux districts pilotes maanaam district bu Philippe Senghor ak district bu Mekhe pour le moment jigéen xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo am 9 ans nekk ci district bu district est rek la ñuy ñàkk moo tax population bi ñi nga xam ne bokkuñ ci suñu district bi xale yooyu duñu leen mën ñàkk ndax phase pilote la léegi nag xale yi nga xam ne dañ leen di ñàkk avant ñu leen di ñàkk dañoo def recensement zone bi nga xam ne ci la ñuy ñàkk dañoo def recensement xale ya fa nekk yëpp recensement bi nag bi ñu ko def dañoo lëkkaloo ak waa euh, éducation maanaam ñiy jàngale bu ñu nee ñiy jàngale nag ñiy jàngale alxuraan ak ñiy jàngale arab donc xale yi nga xam ne ñu ngi ci école yi ñi am 9 ans ñaar ci école yi lañuy nekk wala ci école arabe yi ñi nga xam nekkuñ ci biir école arabe yi tamit ñu ngi ci seen biir kër yi moo tax dañoo lëkkaloo ak daa école français yi lëkkaloo ak daara yi lëkkaloo ak population yi bàjjenu gox yi yëpp jàpp lañu ñu recenser d'abord population bi nga xam ne ñoom la ñu war a ñekk ñu toll ci ñaata ñi am juróom-ñeenti at mmh. ñu lim bi seen lim bi ngeen leen xayma euh, lim bi bi ñu leen xayma euh, mënuma ko jàpp par cœur mais après mën naa la xoolal fii léegi ci archive yi mmh. mais xayma école nga nekk ñii xam nañ ci yan daara lañu nekk ñii xam nañ ci yan quartier lañu nekk ba nga tax ne bu ñuy ñàkk euh, population bi ku nekk xam nga fa nga jëm ndax district ouest bi dafa am 8 postes de santé am 3 centres de santé zone boobu yëpp ku nekk am nga partie booy couvrir partie bi ngay couvrir yëpp xam nga xale ya fa nekk kon yoo xam nga xale yi nga war a ñàkk premier passage te boo demee ba ñàkk ba jeexal te gis na sëlim jotoo ko da ngay dem wëriwaat xool ba xam lu tax yii xale ñëwuñu bu ko defee nag bu amee 6 xale yooyu nga ñàkkoon di nga leen wëriwaat ba gisaat leen pour mun leen defal deuxième dose bi pour mun leen a euh, wax nga ko phase pilote ñu indi ñaari gox teg euh, phase pilote boobu wax que lii ku ko dégg sa doom am juróom-ñeenti at di nga bëgg mu bokk ci pour euh, musal ko muccal ko ci jàngoroy cancer col de l'utérus phase boobu bu jeexee pour lawal ko ci réew mi loolu kañ lañ ko war a mën a séntu vaccin boobu dugg ci Sénégal gi yëpp pour yeneen gone yi nekkul ci zone yooyu. waaw pour lawal ko nag mi ngi dépendre ci li ñuy liggéey nii moo tax ñu bëgg mu réussir ndax bu ñu nee dañ ko limité. ci ñaari district il faut que objectif yi ñu fixé ñu atteindre ko bu ko defee buñ ko atteindre après ñu mun koo lawal waaye pour le moment zone yi xale yi nga xam ne ñoo dëkk ci zone district ouest bi rek te am juróom-ñeenti at ñoom rek la ñu war a mën a ñàkk moo tax ñu bëgg nag xale bu ñu recensé rek yaayam bàjjanu gox ya fa nekk population ba ñëpp jàpp lañu ba xale yooyu yëpp ñu jot leen waaye yeneen xale yi nga xam ne dëkkuñu fa nag ñooñu pour le moment mënaguñu leen jël ñuy ñaan nag mu réussir ndax ñu mën ko élargir nga xam ne day dugg ci programme élargi de vaccination comme ni ñuy ñekkee xale yi comme ni ñu fi jëlee daanaka ngas nga xam ne ñun la daan lore ñu jéem fee jëlee daanaka ñu jéem fee génne cancer du col bi nga xam ne moom du laal xale yi mais mag ñi ji jeeg ju ndaw ji lay laal ak jeeg ju mag mhm. euh, est-ce que na ci waajur yi parce que souvent bu ñu nee xeetu ñaq yi dañ naan ay pikiir la yu ñuy def ngir ëllëg seen doom du ñu jaboot ak façon yooyu daan nañ ko fi dégg ndax yomboon na tey ji pour ñu convaincre euh, waajur yi ñu bàyyi seen doom yi ñu ñaq leen du yomb ndaxte même ñàkk yi di aar ci ay ngas ay ay ay ay euh, fièvre jaune ak yooyu yëpp dañuy am toujours ay problème mais dañoo xamul ndaxte bu ñu xamoon war na noo mën a xam ne Sénégal mënuñu accepter di fi dugal ñàkk boo xam ne bu ñu ko defalee xale bu jigéen du am doom kon bu yàggee dootuñu am gune te ñun ñii di liggéey ci santé bi suñuy doom ak suñuy sët dañ leen di ñàkk donc il faut ñu xam ne bii ne ñun. ñook ñoom benn lañ suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy jarbaat ñoom la ñuy ñàkk kon nag du ñu accepté ñuy ñàkk nem ñu fi ñuy fi indi n'importe quel ñàkk ñu koy ñàkk ñun gaa ñun ñu ngi féetee suuf ndax man dama ñëw ci ndigalu médecin chef district médecin chef district am na ñu ko féete kaw mais ñu nekk ci kaw ñoom du ñu accepté n'importe quoi muy dugg fii ci biir Sénégal ñu koy defal suñu njaboot. Euh, ngeen war a vacciner nag li mu xale yu am solo euh, est-ce que sóor ngeen liñ naan chaîne de froid bi xool ko pour que bu vaccin yooyu ñëwee ba keroog ngeen di jeexal lim boobu euh, dara du ca sookee anam ñu ko war a denceeg loolu lépp pour mu bañ a am gàllankoor efficacité bi mën a am ndax loolu lépp tam gëstu ngeen ci wax ceeg waa kër am ci lim bu doy ba liggéey bi gaaw. waaw loolu moom mooy préalable sax nag ndax maanaam ñàkk bi bu bu buy jógee bitim réew di ñëw. day nekk ci chaîne de froid bu ñëwee bu ñuy dem aéroport di ko jëli ji day nekk ci chaîne de froid bu ñëwee bu ñu koy indi ci district bi ñu nekk noonu day nekk ci chaîne de froid chaîne de froid bi bu fay jógee di dem ci poste de santé yi nga xam ne ñoom ñooy wër ci population bi nekk day nekk ci chaîne de froid ba ñu ba xale bi fañ am euh, glacière boo xam ne fa la ñuy teg ñàkk bi ndax loolu mooy priorité bi lu ko mooy dañuy ñàkk xale yi te duñu leen aar te sonal génn waa bi génne xaalis ministre de la santé médecin chef district ñëpp ànd ci ñàkk ndox loolu musiba la Euh, gone yi nag yombul ci ñoom parce que mbiri pikiir la ñuy bañ a dégg. waaw gone yi moom yombul ci ñoom waaye nag ñu jéem ñu xamal leen rek ne. dañ leen di aar mag ñi sax am na si ñoo xam ne nag ñemewuñu pikiir waaye nag dañu leen di naxtaan rek ba ñàkk leen xam ne dañu leen di aar ndax fagaru moo gën faju ñu lay gërëm di la sant madame Fall Nogoy Mboup coordonnatrice santé de la reproduction district ouest ngeen doon euh, amal nga doon dig ci phase boobu pilote bi ci euh, ñaq yi ngir aar xale yi ci cancer col de l'utérus juróom-ñeenti at gone yi euh, ngeen tàmbali liggéey boobu ñu lay jaajëfal ci leeral yi nga xamante ni indi nga ko. merci beaucoup jërëjëf.